projet la boo xam ne nii dañoo toog classe nas ko sàkkuteef bi du lenn lu dul fexe rek ba aar suñu plage yi. jëmmal fi loo am solo ëllëg loole moo di seen mission ñu nekk ay fukki fukki étudiants ñu daal di boole seen doole ngir rek lépp luy mbalit lu nekk ci plage ñu daal di ko fay jëli bile yoon nag ñu amal ko ca bu yoon. dugal seen loxo ci boobu la xeex nag tax ñeneen di daal di jot ci liggéey yi leen ndaw ñaari étudiants yi ñoom it guleet ñu daal di bokk ci activité bi ni mel ñu bëgg ko wóyal. quand on veut se suñu bëggee aar suñu bakkan aar it suñu dëkkuwaay faaw ñu soppi doxalin faaw ñuy xeex ngir sàmm alam gi. ci genre activité yu mel nii jàppalante entre ñun ñi bañ di tilimal tamit. naam seen doole demeewul noonu nag teewul ñuy wéy di amal seen liggéey ca na mu waree. li ñu mën a def bëri na lool waaye nag amuñu ay moyens ngir jëmmaale seeni projet ñoo ngi rek a sàkku si ñi nga xam ne dañuy yëngu si lépp luy sàmm alam gi ñu jàppale ñu dugal seen loxo si lu ni mel. taux pollution plage yi ak érosion côtière fii ci Sénégal mu nekk ñaari question yi nga xamante ni nag daal dinañ koy becc ci ab film documentaire balaa ñu ko fësal nag ñuy woo ñëpp ba ñu dugal seen yoxo ci xeex aar géej gi. ñun daal ñoo ngi nii ñoo ngi woo képp koo xam ne mën nañu jàppale ñu dimbali ñu ndax fi ñu bëgg dem ñëpp si nar a gis seen bopp te amul xàjj ak seen it. Aider toutes les personnes qui sont victimes de l'érosion côtière.